waa def na waxtaan bu am solo fii nag. Ah. sama sëriñ la bokk. sa ah, sëriñ la bokk waaw. sëñ bu baax la nag. moom jàllo jàllo la day jàllalaati ah. àjjana. <laughs> loolu la macha allah am na solo euh, mais Fatou avant may commencer d'abord damay nuyoo rek kii di euh, Djibirou mm-hmm. Talla mu ngi ñuy suivre euh, jamono ci mm-hmm. donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko ne rek dama yéex a gis sa message moo taxit it maa ngi lay nuyoo di la ziar bu baax a baax mm-hmm. Fatou tey nag ñu war a waxtaane lii di wala sax taxawaayu imaam ci biir société imaam Samb laataa ñuy wax d'abord taxawaayu imaam ci société imaam ñu war a def ba fal ko d'abord yan yan mandat la wax a am bañ mun ko fal ne ko kii moom léegi mat na ñu doon ñu fal ko mu doon imam parce que Sénégal moom dañuy xëy rek ñu ne diw imam la te imaam yi di xeex seen biir tamit mhm. ñii ne dee duma nangu duma topp ci ginnaawam mu am ay clan am ay groupe ñii di xeex ay cour feñ di jóg mhm. mais laataa loolu d'abord imam nu ñu war a def ko tànn ko ñu ne diw nag mat na ñu tànn ko mu doon imaam. Mhm. jërëjëf xam naa dig ma may rek. ñu ñaanal kenn ci imaam yi. mu dëddu biig ci guddi ajuma ji. Hmm. docteur al imaam al xaaji Thierno Ka. Hmm. xam naa palaatu wal fajri mi noonu na ko. Hmm. dëgg la. soxna faatu soxna Fatou. Seyidi Souleymane. Serigne Serigne Gueye. Serigne Gueye. Serigne bi baarakallah. cheikh eh, sama mbokk Saïd eh, kii di wax di Serigne Mansour tax ma tudd leen ak suñu techniciens yi ñu bàyyi xel ni ñun tamit nii sama mbokk mi tuddee suñu mbokk ma Cheikh Sidi Lamine ñu tudd léegi docteur Thierno mhm. mënoon tudd ñeneen bis dana ñaw ñu ne Serigne Mansour moom it daana toog fii. yal yu mu yéex yéex day ñëw amin yal na waaye <laughs> waay <laughs> waaye sunu kanam la nekk. kañ la ndaka la fan la yàlla moo xam. Mm-hmm. du ko ragal. Mm-hmm. déedéet. ah déedéet après mukk dee. Ah, fokk ñu takk fit wi. Mm-hmm. ndax mënul ñàkk kenn amul garabam. waaye nag mais après. Ah, ah, mm-hmm. après ga ma foofu la ñu ragal. waaw mm-hmm. Mm-hmm. moo tax nuy góorlu moo tax saa suñ ne demal nga jottali kàddu yàlla ñu fëx. te duñ ca wut lu dul ngërëm suñu borom. jotaay bi riche na ndax commencé ci oustaz bi toogoon fii. oustaz Souleymane. sëñ Souleymane. ba ci sama mbokk mi jóge Maabu. Babacar Senghor. Babacar Senghor professeur. au passage ma nuyoo Ousmane Dramé di sama mbokk. imam Ousmane Dramé. waaw di sama mm. mbokk du ñu toog ñaari fan ñett ñu dul jokk. Ah, ma ngi fay bu am solo ci fédération maître coranique. moo jiite département moo jiite région ba. région ba mm. Malick Wilane moo ko jiite woon. yàlla dogal mu jiitu. mu mu diir mm. waaw. bañ koy denc maa nga fa. ndeysaan dëgg la ca Kaffrine ca kon am na tuuti lu nu fa xam. waaw yow xam nga fa. Koungheul Mbirkilaan Malem Odar. Euh, dëkk yu saf sàpp ak alquran. Hmm. soxna maamu. Hmm. Euh, danga dugg fu am solo ndax sunu borom bu ne ëllëg bu ñuy rappel tëdd liste bi sa imaam lay doon. yow hmm. yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim kon imaam jar naa xoolaat de. wa jaalna minhum aimmatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun ca suratu sajda boobu dama koy denc foofu ba ci kanam kan moo koy nekk yonent bi xam nga ni moos mi ñuy leeral maa la wa jalla du ko ñàkk a leeral ya ummu naasa aqra'uhum li kitaabillah ki gën a maîtriser alquran bu ñuy fal imaam nañu fal kooku bu ñuy jéem a sarxa nag jëmmu xadis bi ak aaya bële ma jàng ci sajda sunu boroom di wax ni defaloon naa leen ay imaam yu jub di topp sama njub waaye ànd ak muñ waaye ànd ak di appliquer di jëfee di pratiquer samay aaya hmm. yi ma wàccee bu ñuy lëñ bët yooyu ci la ñuy lu mat juróomi tomb hmm. ñett yu njëkk yi maa ngi ko jëlee ci imam Ahmed Dame Ndiaye au ma nuyu ligue des imams et prédicateurs de Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. rabitatul aymati wa duaat. ñu koy ziyaara bu baax imaam mm-hmm. ak imaam Fadilu Taal bi nga xam ne moo jiite comité directeur bi. ak mboolem ak ima yi ci Sénégal yëpp. yéen wàccee seen wàccuwaay. ci moom laa doon dégg ñett yu njëkk yi ci juróom yi may joxe. al im al im al sharia maanaam imam fokk mu xam sharia. day am xam-xam ci charia muy benn mm-hmm. muy benn mm-hmm. ndax bu ko xamut ah. nit ki la mu xamul du ko mën a pratiquer mm-hmm. yenente ni ki gën a maîtriser alquran boo ko maîtriser wul doo ko mën a appliquer buñ ne charia buñ ko expliquer mooy loi islamique loi islamique parce que imam fi ci lislaam la l'islam boo nee ne rek mooy njiit buñ ko itlaaqee nag lañ ci jublu mooy imaamu lislaam imaam ci lislaam ñeneen ñi am nañ seeni imaam tuddee ko weneen tur woo ko mën di tudde mais baatu imaam rek mooy njiit ñaareel bi al ilmaam bi ilmi al waaqii mu xam al waaqii mooy réalité jamono xam liy xew maanaam diin jamono su boobaa voilà day xam jamono am jamono. waaw am day nekk ku am culture ci jamono. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. muy ñaar. day am li xew. waaw muy ñaar. bu ko defut pour ñu nax ko. day yomb day yomb. day yomb mm-hmm. te am ñu am ñu bari ñu mën a naxu ci moom. te dafa am ba tey sax ci li nga point bi nga njëkk a wax muy euh, charia daf ci am loo xam ni peut-être l'islam jamono day dox dox dox doxo dox ba am nu mu ko gisee te loolu it. il faut moom mu xam la jamono indi mu soog a xam naka la koy dox waa li ñu tudde fiqhu nawazili xam ni fiq yamut ci nu ñuy jàppe nu ñuy sangoo set nu ñuy jullee nu ñuy oore azaka yu mel noonu mais dafa am li ñu tudde fiqhu nawazil mooy almustajdaat yu bees problème yi xew yi xew lu Omar ibnu Abdul Aziz cinquième xalif rahimahullah dana wax ni tuxdasu linnaasi aqdiya qadri ma axdasuhu min al fujur toujours atte ah, yi dañ koy xoolaat di ko dëppale ak jamono. ak jamono. Mm-hmm. loolu nag dafa laaj niveau bu kawe ci xam-xam. tey du kenn lay doon. mais majmaa lay doon majmaul fuqaha mm-hmm. maanaam ay savant musulman yi war a toog. Mm-hmm. war di daje waxtaan. Euh, di càmbar atte yi lu lu yii xew ni la ban atte lay méngóol. li ñuy tuddee al qiyaas. ñetteel bi ñetteel bi. ashujaa fi tasriix al am fit bu waaw jotee mu ni waaw bu déet jotee mu ni déet mm-hmm. wala yaxaafu fii daalika lawmata laa'im du ci am benn calcul kon imaam warul nekk mouton de Panurge. wuñ ne la nañ dem fa rek ñu ne ayca waaw nañ dem. li ñu wax ni sañ Fallou daana ko wax. doo ci leble waaye doo ci fay bor. Hmm. wax ju xóot la. waaw ju xóot. Hmm. muy ñett yu njëkk yooyu nga xam ni. même ligue des imams et prédicateurs fu ñu daje di def séminaire de formation. Mhm. dañuy fàttali ñetti point yu am solo yooyu. Mhm. Mhm. ma ne bi ma gëstoo mbir mi danaa ci yokkaat yaar. yaar donte yaar yooyu. am na noo koy tëggee mu mën a dugg. ñeenteel bi. mooy xusnul xuluq. rafet jikko. bii sama mbokk mi doon waxtaana léegi. min kulli wasfin xamidin xaaza. afala tafdilin rajau lbaraya yowma musdaximi wa innaka la ala xulaqin aziim fa sa tubsiru wa yubsir ndax imaam bi bi tax ñu naan imaam te ñëpp war a jaar ca moom loolu lañ ko teg war a yor jikko yu rafet rafet ndeysaan fa bima rahmatin min allahi lilta lahum walaw kunta faddan galiza alqalbi lan faddu min hawlik fa bi xayrihi wa bi xaylihi jalabal wara hmm. wali man aja bu nay la xëy ramaraami hmm? hmm? xam naa bu ma ko firiwul it. soxna Fatou xam na li ma wax. <laughs> waaw waaw nga firi ko nag <laughs> salaam. ci rafet jikkoom ak jëflanteeg doom aadama yi. ci la bijjee mbooloo mi gaaw a ñëw. wa raayta naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaaja nit ñëw di ko yoot ba nar koo rey affaire bi mbas moom mi jékk woon yonent bi walbatiku jékk ko mhm. ni ko nu ma lay def mm. mu ni jéggal ma mu ni mu tuub mu ne mu mel ni màkk ak li ak liñ ko def mm-hmm. lépp keroog fatxu màkka maaza tadunnuuna anni faa'ilun bikum loolu la yonent bi wax lu ngeen yaakaar laa leen def tey nag. te booba jekku na. jekku na ñëpp a ngi sëgg bu nee gars yi dóor leen jaasi ñëpp de te xoolal lam fa daj. loolu waxtaan wi du ko attan. waaye dañuy isa bu fantum tulaqa comme la Youssouf waxoon laa tasriba alayhim mm. topp ma leen dara baal naa leen. rafet jikko mm-hmm. rafet jikko mm-hmm. Mm-hmm. moo tax mu ni fa bi yi. ci yiwam yi. wa bi xayli. wa xëyli xaylihi fasam ya ca jihaad ya. Mm. ca ña doon bañ bëgg a faagaagal islam. Mm. kon da gis ni. laa biir fulla laa biir fulla bokkut ak yambar soxor waaw laa biir fulla bokkut ak yambar soxor bii contraire bii la bee contraire bee la mhm. lafun wanasho mhm. murattab quatre cinq mhm. atawassut baynahu wa bayna rijalil bariza euh, fi dunia wa siyaasa équilibre digg doomu ci diggante góoru àdduna yi ak politiciens yi nitu buur yi du ñuuxu nguur ak borom alal waaye du ko ñuuru du ko ñuuxu du ko ñooru déedéet du ko ñooru day nekk ci juste euh, mm-hmm. du caa génn day ragal buur gannaaw am comme wal fajri na muy doxee rek mën naa koo joxe foofu mm-hmm. exemple mm-hmm. ak xam ni moom waxul ni damaa nekk ca kaaw ñuy opposé waxul damaa nekk ñuy ragal buur mais peuple bi laa faral kon taxaw naa ci seen diggante su ngeen jariñu askan wi ma jàppale leen su ngeen ko jariñu ma leen hey arrête mm-hmm. mooy seen bande bu am solo boobu ngeen di faral di teg léeg-léeg muy wax sunu góor gi di wax naan. fexe leen ba ànd ak askan. kon imaam dafa war a ànd ak askan dafa war a ànd askan wi. dafa war a ànd ak askan wi ci dëgg. ci dëgg mhm. ci dëgg. Mhm. yii daal ay qualité la yu am solo ginnaaw nag ak nuqtal asasiya bi mënta ñàkk. Mhm. ba yonent waxoon mooy ya umu naas aqraw ki ngeen di fal. ne ki ki gën a maîtriser. alquranul karim bu ko maîtriser juróom yi ma wax yëpp. da koy mën a xam parce que alquran xew-xew jamonoog euh, shariaak rafet jukkoog lépp mi ngi ci biir alquran maanaam su maîtriser alquran maîtrise bi ñuy wax noonu. maa farat naa fi kitaab min shay waaw lépp a ngi ca lépp a kon bu ñu fexee ba fal imam bu mel nii kii mooy mën a jouer nag rôle bi ñu soxla ci société bi. ci biir société léegi kon ci rôle boobu la ñuy ñëw euh, tey jii nii xam nga Fatou Sénégal dafa dafa yéeme mooy dañoo nekk ci biir société ba nga xamante ne. Mm-hmm. imam euh, kenn du ko jox cër parce que par parfois comme li nga wax la cinq critères yi nga xamante ne moom la ñu war a gis ci moom. nekkul ci moom amaana sa benn sa amu ko parce que dañuy gis ki nga xamante ne sax euh, tari sa Fatiha sa tëna ko. bind bind arab mënu ko liir mënu ko ah. faram fàcce ba pare ngay jiite peut da nga kese te. ne euh, aaya kese ngay mémoriser. Mhm. léegi ci biir euh, euh, rôle wala taxawaayu sax imaam ci biir société nu mu war a demee moom taxawaayam ci biir société pour société bu baax bu bu mu. waaw loolu li ñu naan mbañ gaa nga bañ a ca mbañ jaxaan ga. Mhm. maanaam bu fekkente ni dañu naan bàyyi ma fi nekkoon imaam. Mhm. kon nañ kon nañ ko fal imaam. am na fi de bàyyi fi nekkoon bilaal. nañ ko def bilaal. est que la la woon ci bàyyam mi ngi moom. wala ah maa tabax jumaa mhm. ji maa fi ëpp koppar ci koñ bi am na alal am na alal waaw kii daal la waaja waxoon buñ ma falul imam bi ma ma teggi samay tiwil teggi samay tiwil yow <laughs> loolu mooy indi problème yi ñu dund tey te nanguñ ko ci àdduna de mhm. buñ doon fal président de la république bokk na ci qualité yi mu jàng waaw docteur bi faj di opérer xol yi di dagg di kile mm. kooku duñ ni bàyyam moo nekkoon professeur ci hôpital principal rek. ñu jox allé traité na kon nañu jëli doomam indi ko. teg ko ci bloc bi. kenn xalaatu ko muy dem di opérer wala di bind ay naan jox mm-hmm. pharmacien du caa gën a da nga ubbi sa pharmacie nga faatu ñu ni kon doomam nañu yor pharmacie. déedéet jàng mm-hmm. jàng. Mm-hmm. loolu nag soxna maamu. moo ñu indil problème bii nga wax léegi. ba role bi mu war a joué du ko mën a joué moo tax problème yii di xew parce que imam bi war a jubal bu jubut. Mm-hmm. dara du mën a jub. dëgg la moo tax léeg-léeg maanaam imaam dafa nekk lu sacré lu sell mbalaanam weex tàll moo tax boo déggee ñu ni imaam ba tudd viol wala imaam ba tudd sàcc wala imaam ba tudd nàngam day rëy. ñu def ko alaalin. ci journal yi. Mm-hmm. dañ koy tiitare. bokkut ak benn samba bu def fële benn tojàng. parce que imaam dañ ko séntuwul lool. atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taaqiluun suratu albaqara borom bi ni naka ngeen di digle lu baax te du ngeen ci jiitu yow mi digle lu baax yaa ci war a jiitu problème bii nag tey dañ koy dund ci sunu société bi maam moo tax mbir mi jafe moo taxit mbir mi jafe kon tey imam bi war na jouer benn rôle bu important ci biir société mm-hmm. tey bu gisee fu am problème rek war na àtte euh, mais aussi tey gis nañ imam yi tamit euh, parfois euh, ay sëy dana yëngu ñu dem gis ko waxtaan ak moom boo dana def tey ñaari ku góor ki ak maanaam euh, borom kër gi ak soxna si ñu daal di jiboo kon tey. dama nekk médiateur. waa mm-hmm. médiateur lay doon ci biir euh, société bi. Oh, euh, maanaam régulateur. régulateur waaw moo gën imam mm-hmm. day régler problème yi imam du caa génn jiite jàkk ji rek. Mm-hmm. wala lañ ko doyee loolu benn la ci ah. ma ne ñi ñi am ñoo xam ne imam tudd doom nit ki faatu. waaw tudd doom takku boobu kese lañ ko jox waaw ah, ñëwal kii ñu ñëw ñu miiras. Mm. déedéet imaam julli denc. Euh, social la. Mm-hmm. day régler cas cas social yi. imaam euh, day atte. imaam day régler problème yi. Mm-hmm. docteur Mohamed Ahmed Lo yal yàlla sàmm ko. bind na ci ab téere bu am solo. Mm-hmm. tudde ko kayfa nu'iidu lil masjidi makaanatahu. naka lañuy def ba jàkka ji. joué rôle bi mu daan joué. te mm-hmm. jàkk ji chefu jàkk ji mooy imam. waaw moo tax imam ci boppam du allahu akbar asalaamu aleykum yooyu lañ koy dee. Mm-hmm. mais imam dañ koy soxla ci cas sociale yi xew. gis nga mm-hmm. imam yi yi joué seen role dëgg-dëgg. la ñu ci problème social caisse sécurité sociale bu état bi mënu ko rek. tey la àjjuma. ordonnance yaa ngi dàq ci jàkka yi. ba am sax. waxtu juróomi sax. waxtu julli waaw waxtu julli juróomi ba moo tax sax ñi nga xam ni tey ay naxaatekat lañu di ci profité ñëw sëgg ne damay tuub da fekk euh, ci lislaam la judd <laughs> waaw waaw. di wax ni nee déggul wolof moo gën a dégg wolof li ngeen dégg na ko. poche <laughs> waaw ordonnance boo xam ni jaar na ci d'accord bind nañ ko caché nañ ko mais jaar na ci wet yu bari. ordonnance bi vingt cinq mille la woon. am nga ci trois cent vingt cinq mille. jàkk bu ne nga dem ne dama am ordonnance ci le même jour. fee fajar fee tisbaar fee tàkkusaan fee timis fee gee. ñu yëkkati la nga présenté ko. ñu yëkkati jox la. ñu yëkkati jox ko. Mhm. boppam lay nax de. kon tey imaam ñi ko jox ñëpp am nañ tuyaaba. kon imaam Samb tey mun nañ ne imaam yi ñu ngi joué rôle bu am solo parce que parfois dañuy yaakaar ne imaam yi ñoom euh, peut-être duñ ko fësal. ndekete am na ñi nga xamante ne ñuy gis imaam yi imaam yi di leen di yëkkati xaalis euh, keesu jàkk ji di yëkkati xaalis di leen ko jox ci teranga waaye aussi di ko def te yàlla tax fii sabilillah te coow du jib kenn du kenn du yëg mm-hmm. xam nga dañoo yaakaar ne fay foo faut nga fësal ñëpp xam kon kon mm-hmm. tey mun nañ ne imaam yi ñu ngi joué rôle boobu parce que kenn du dégg man ba jusqu'à présent du dégg benn yoon benn imaam ne ma am na diw nii ndaw si wala euh, góor si ñëw na ci man yëg si naa jox ko secret lañ ko def donc non imaam yi li ci suuf mhm. ci biir néeg ci biir kër yi loolu buñ ko doon wax kon dëkk bi toj hmm. waaw kenn wax nopp mënu koo dégg hmm. mënul nekk hmm. euh, imaam yi imaam day am sutura imaam imaam ak docteur du du malade bu dugg. génn keneen dugg nga ne ko gis nga kee génn. Mhm. nangam. man dama doon faj. déedéet ma man dama am benn question. li mu wax yii yëpp kon imam war nañ ko former dafa mel ni. Mhm. maanaam mhm. ko yokk ay capacité dañu gis ligue des imams ak imam Dame Ndiaye ñuy amal ay session ay séminaire de formation. di dajale yi nga gis ñu jógee ba ay Kaffrine ci réew mi yëpp. bokk ci ligue des imams te def ay tàggatu ñu leen di jaajjaat ci yenn kii kon loolu lu lu yoon la lu jaadu la kon de bu ñu delloo ginnaaw tuuti sax ci historique gu sosu ligue bi hmm. yëgoon ni imaam ñi yëguñu lu xew hmm. loolu moo ko sos ah, ci jamonoy Abdoulaye Wade bu hmm. mu jekki jekki di tabax benn xiram fii soob Ndakaaru imaam yi war di ci xutba war di ci wax. ñëpp ni tekk ngir ragal buur wala yu ne ak ay calcul ak yu ne mel. Hmm. ay débat yu saf sàpp doon na am fii. Hmm. waaw imaam yi joué ci seen rôle. ci booba léegi amagut. Hmm. ca lañ daje ci mosquée inachevé bi bu yoof ni kon jot na ñu organiser wu def ay formation te loolu mbooloo moo ko mën. première séance ba yàlla dogal na ñu bokk ci ñi teewoon bokk ci membre fondateur. kon bëgg imaam yi yokk seen capacité. ci xam-xam seen formation ci jamono loolu bokk na ci li taxoon ligue bi sosu mm-hmm. tey mi ngi taxaw ci rolam loolu bu amutoon kon dañ naan ligg bi oh, absolument mm-hmm. ban njariñ ak lu ko taxoon a sosu mm-hmm. formation yooyu bokk na ci li tax mu am mooy yokk capacité imam donte néew nañ ci doole ci wàllu moyen ak yu na mel waaye ñoo ngi koy amal Mm-hmm. gisoon nañu fi sax imaam yoo xam ne ñu ngi doon wax ci mm-hmm. électricité bi courant bi. waaw mm-hmm. waaw loolu mooy taxaw askan wi. électri électricité booba léegi bi sosoogul woon. ca suba marché yu métti yooyu ci géejawaay. bañ naan imaamu géejawaay yi. <laughs> waaw booba dañuy doon solidarité. ak ak Walfadjri Walfadjri ñëwoon nañu. waaw sunu ñàkkum ndox mu métti ma woon ci kër Damel. ci kër ci Damel waaw ba ma ba ma gu xongo ga. <laughs> yàgg na yàgg nga ñox de oustaz mi <laughs> imaam mi moom yàgg na. boo ko ci woowee rek di pare na. ci manifestation bi daal manifestation bi ñëpp daal di clé. ñu euh, ñuy def ñu takk yu xonq ma ne jox leen ma yu xonq yi. waaw ko dindi kaala gu weex gi. macha allah euh, loolu maanaam. bokk ak askan wi seen mitit. keroog hmm. premier ministre nee na imaam xàmmeetuma la. waaw moom mooy suñu marché Palestine bi. Palestine bi man moom dama bëggoon ñu indi vol bi. keroog samedi waaw. man damay dem sama waa kër dama leen bu dee am na vol ma séntu leen ma Palestine. si. boobu pantalon chemise ak déguisement ku nekk ci xeex. yow kay ni jox leen ma carax yi moom laay so. moo tax it ngeen xàmmeewu ah. moo tax xàmmeewu la kay. moo tax bu see Ousmane Sonko mu ne xàmmeewu ma noo waruma xàmme. parce que boobu da booba dañu geeturu pour xeex. ndax sunu jigéen. ya ñuy rey ca Palestine suñuy màggat suñuy xale Israël xeexu tàppet bi muy xeex nga xam ne day day joggi ciw xeer dogg ni nañ sànnant mm-hmm. daal di tiim hôpital wala marché bombardé daw mm-hmm. waaye Israël mooy mbuqat mooy yambar <laughs> na dem jàkkaarloo waa Hamas ci àll bi <laughs> d'accord dégg na waaw xam naa temps bi ñu may rek euh, moo ñu xoj imam vraiment waxtaan bi am na solo mm-hmm. euh, parce que imam yi aussi parfois euh, faatu di gis ki nga xamante ne peut xëyul gontul mais xam naa traver imam li muy waxtaanee il faut que maanaam imam nga am aussi beneen métier. ndaxte euh, Sayid Diallo wax na ko. waaw yéen bi sallallahu alayhi wa sallam doon nga xamante ne daanul toog di xaar musul tàllal loxo di ñaan. donc tey imam waroo yem seulement di ne. Euh, julli euh, woor bu pare amoo métier kon métier lu am solo la. kon vraiment temps bi ñu may moo ñu xoj. imam looy tàggatoo ak tes spectateurs yi. <laughs> di ñaanal mbokki imam yëpp yal yàlla sàmm leen. amiin ñaanal. état bu bees bi yàlla na yàlla jubale ko ak imaam yeeg sëriñ daara yi. li tax ma tànn loolu mooy loolu mooy njëriñu askan wi. dal am fu dal amut naataange du fa mën a. Mm-hmm. ñoo ngi ñaan suñ borom mu may ñu nawet bu naat xol yi naat. assemblée bi macha allah Mm-hmm. ñu jéem a bàyyi xel ni askan wi lañ fa war a nekkal. imaam yi dem mm-hmm. assemblée nag. waaye du parti gi assemblée bii di ñëw. Mm-hmm. na ci imaam yi saf sàpp ak seen daara yi. loolu maa ngi koy dagaan waa Sénégal. waaw xam ne loolu mooy tax. waaw euh, Sénégal naat jëm kanam. ndax njub day am. déggoo day am xol yi naat waaye ñetti at yële ñu dundoon. Eh. diggante deux mille vingt et un jëm deux mille vingt quatre. Mm. yàlla buñ ko dundati. amiin yal na yàlla dolli sàmm wal fajri. amiin jubale ñu ak téléspectateurs yi. incha allah jàlloo mm-hmm. ñoo ngi leen di ziar. Mm-hmm. di ñaanal suñu bàyyi euh, docteur Thierno. Mm-hmm. fi mu jëm yàlla na ko gënal. fi mu jógee euh, di dolli fasante colère. di nuyu suñu mbokk Alxasan Diouf. ak waa Walfadjri yëpp. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatuhu. Fatou vraiment waxtaan bi am na solo bu baax a baax. donte sax yeneen question yi amoon nañ ko mais temps bi moo ñu xoj. tellement que rôle ba nga xamante ne moom la. dañ ko bis vendredi. waaw dañ ko l'autre jour xam nga moo fi ñëw. waaw moo fi ñëw waaw. te nag imaam imaam Oustaz Assane Nandite la. waaw muy naan ñu waxee rôle euh, rôle euh, rôle euh, kii kii mooy taxawaayu imaam ci biir société. waaw.